am solo préparez-vous au combat pour chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat <clears throat> Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon, comme je l'ai dit. Notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui. ñu toll soxlawuñu yërmande man ay nit yu dogu laa soxla ay nit yu am fit foo mun ci nekk ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen daañu xeex de Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom su dee daf ko bëgg a continuer jël bakkanam te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan dangeen ngeen violent wala da ngeen bëgg a fitna du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk. may wax nag waa APR ngeen déglu ma baax waa APR nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc. Euh, kër Matar ba mu ngi metti lool lool lool waaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon garde yi sax gis nga ñi nekkoon garde yi sax ñi nekkoon garde yi sax daw nañ dugg ci biir kër gi leen ko oto yaa ngi nii ñu taal ndeysaan mbir mi metti na lool lool lool tey gis nga ñoo ngi Kër Matar ba ancien ministre des sports gis nga bis bu manifestation amatee ba ngeen dajji seen i kër ay milliards ngeen fay fekk ay matériel boo xamante ni nii moom moo nekkoon euh, ci biir salon maître El Hadj foofu la télé bi nekkoon télé bi nag daanaka dañ koy yóbbaale ñoom ñi xamante ni nii def nañ euh, bi la attaque dañoo yóbbaale li nga xam ne moo di télévision bi. ku mu neex rek nga toog fële ne Sonko nitu fitna la j'assume. université bu Ndakaaru jël wàllam lool ci manifestation yi. naam taal na oto yi nga xamante ni administration bi moo ko moom wante itam teg nañ ci personnel bi Papa Issa Fofana mi nga xamante ni wotoom ci la bokk ñaawlu na ko. c'est pas tout vous voyez là, ce sont des collègues, yi ngeen fi gis yëpp suñuy naataango ñoo ko moom. xam ne ñoom ñooy bokk ñoom di liggéey fii euh, bis bi ngeen gis nii mooy bisu personnel lu béy yu euh, woto yi tamit euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ku nekk sa woto fi nga ko gaari woon waaye daal lépp lañu yàq yàqate lépp la ñu yàqate toj ko bàyyiwuñu fi dara loo xamante ni bi lu ñu mën a jëfandikoo waat la man xaw ma sax la mooy jubluwaay gi dëgg lenn ci faculté yi itam jot nañ seen wàll bokk na ci fac droit nga xamante ni chapiteau bi lépp dafa tàkk ba jeex boo demee ci sisti woto yi dañ koo taal gën leen farlu gën leen takk ndig yi ndax lii day door tey la commencé day door chance nee naa leen xeex fi mu gën a méttee fa la victoire bi gën a jege nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser ma jiital ci ndaw ñi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko fas yéene jàkkaarloog Macky Sall jàmmarloog moom xeex ak moom jële ko fi ci fan yi di ñëw ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi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 Mhm. en principe c'est bon lumière voilà le... Euh, mesdames et messieurs